docteur Cheikh Seck ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen koy ngay secrétaire général bu syndicat démocratique travailleurs de la santé ak secteur social euh, bu hôpital Oggi euh, tey jii nga représenté leen sax euh, tey gis nañu ne mbas mi Sénégal law gi dafa bëri ñu gis tamit ne médecin yi ak personnel de santé bi ñu nekk ci kanam lim leen dal bëri na ñu ngi ciy wax sax ay cas de tey nan la ñu mën a expliquer ñaari phénomène yooyu. ñaari phénomène li ko mën a wéy mooy gestion politique politicienne bi ci am ci mbiru coronavirus. Mhm. xam nga man ñu yàgg nañ ci système de ci mhm. épidémie ñu suñu koy gérer à l'hôpital parce que mhm. épidémie bu ñu koy euh, euh, mën a wax ci ci ci ci ci olof dañ naan bu fekkee ni daay tàcc na par exemple bu amee feu de brousse comme ni ko tubaab yi waxee. Mhm. il faut créer ce qu'on appelle des pare-feux si vous ne créez pas de pare-feu surtout bu ñu koy d'éteindre le ministère ci lakk bi. Euh, mhm. day fay feneen day tàkkaat te tey jii dañuy daw ci ginnaaw feebar bi arrêté wuñu feebar bi parce que dès le départ seen wax yëpp ci lal la cas grave. seen ndoxalam la mooy cas yi for boo xoolee li am ci ñuy feebar toll nañ ci fukki junni ak ñeent ci fukki junni yooyu ak ay juróom benn téeméer rek ñoom ñoo ci am lal bu mu tëdd ci hôpital daa am na fukki junni ak ñett nit ñoo xam ne kenn contrôlé wu leen hmm. kenn xamul ndax ñu ngi toog seeni kër kenn xamul ndax ñu ngi circulé te ku ci nekk rek ndax agra gravité virus bi mën nga minimum nga wàll Euh, benn nit wala ñaar nit wala ñetti nit. Hmm. au minimum laa la wax mën na dem ba cinq. moo tax ngay gis fan yi yëf yi day gën a yokk pour ne day wàññeeku ñi day gën a yokk parce que tout simplement ñi nga xam ne ñooy propager virus ñu ngi biir am na ñoo xam ne dañuy nëbbatu. Hmm. am na xam ne bu ñu xëyee dañuy jaay ñoo ñuy jaay ndekki tey jii kan mooy ndekkee sa kër ci kaw rek yaay yaay am sa même mburu mi ngay jënd sax ci biti nga koy jëndee parce que defaruloo ko sa bopp. donc mburu moomu ka la koy jaay est bu feebarul amul ku Euh, laalanteeg moom loxo parce que jox na ko xaalis parce que xaalis boobu kooku feebar na jox ko mu laal nga jël mburu ma tàngaloo ko ñëw lekk dugal ko ci biir. Mhm. xam nga loolu moo indi propagation bi donc bu ñuy agir du question wu rek dem jënd ay boo mën a jël deux milliards nga jënd ay ay ay matériel pour de réanimation wala ay respirateur nga jënd ay oxygène. Mhm. néew ñu gaa baaxul waaye nag na am lu jiitu tey jii boo amoon sa garab. garab gi génn nga ni nga ni dama bëgg a rey garab mhm. ba pare ngay xob yi rek ngay dagg boo xob yi boo ko daggee day day jeddiwaat wala branche yi ngay dagg day jeddiwaat mais boo demee ci racine bi nga dindi ko nga garab yi garab bi dootul jebbeeti mhm. moo tax man la le mal ko def au niveau de la racine tey jii nit feebaree doo def traitement symptomatique yaay traitement symptomatique rek la def mhm. maanaam nit ci boppam mi ngi metti mi tàng nga boobu moo deful attention bopp bi day gën a méttiwaat parce que doomu jàngoro ja nekk ci biir mi microbe reyuloo mhm. te ñun ñoom reyu ñu doomu jàngoro ji li ñuy def nii def ñu ko loolu loolu bu ñu ko bëggee def mhm. dañuy dellu ci biir dañuy xool tey bu ne nit am na feebar bi foo ko am feebar bi ñu fexe ba kooku bu nu bu nu développé stratégie ñu xool kooku ñaata la mën a mën a wàll ñu fexe ba nga xam ni même bu doon mën a wàll dix personnes parce ci su may liggéey damay jël ay malade mm-hmm. donc malade yooyu yëpp bu ma leen jël mën naa leen wàllu feebar bi bu fekkee ni feebar na kooku mooy ki nga xam ne moo nekk ci kër gi moom mooy togg moom maay jox ñu ne ñu lekk mooy mm-hmm. togg te cat ci war amul ma dugal joomu jàngoro ci lañ nit ñi lekk maa ngi koy wàllu plus de dizaine de personnes mm-hmm. su fekkee ne damaa nekk ci koñ bi maay jaay nit ñi ndekki wala maa yor restaurant di jaay nit ñi añ su fekkee ni la ma maa ngi yor feebar bi ça veut dire lekk fa maa ngi ko maa ngi ko jox feebar mhm. donc bu ñu war a agir le plan de la communication comme sur le plan de la stratégie foofu lañ ko war a développer parce que na wax privé ñu ne su fekkee am na cas cas cas ku décédé ci Covid parce que cette dafa dégradé mooy cas grave mais bu amee cas grave parce que dafa am cas donc bu ñu fexee ba cas wàññeeku wala cas amatul ça empêchera les les les gens pour pour pour pour maladie bi maladie bi gën a ñëw. Mhm. bu amul bu amul cas du am cas grave bu amul cas grave du am ci décédé. kon da nga bëgg ne stratégie gi ñu teg baaxul. baaxul dafa mosul a baax dama la parce que dès le départ xam moo ko indi. Mhm. moo tax xaalis fu ñu dugg rek yàqu. Mhm. loolu mooy problème gis nga bi épidémie ñëwee. bu épidémie ñëwee bu ñu bàyyee woon rek doon opérationnel ñu géré ko lii lépp du am mais danoon toog président ne teg na un milliard bi ne teg un daf cee daf cee écarté ñëpp ay nitam la ñëw toog ñu créé seen loolu parce que xaalis bi la doon bañ wécc leen donc xaalis boobu ñu tegoon moom lañ doon jéem nekk naan dañuy gérer moo tax impliqué wuñu ñi nga xam ni sur le plan opérationnel ñoo ko waroon gérer booy xool def nañ presque trois ou quatre mois fi nga xam ni feebar fa la doon jógee muy district yi muy centre de santé parce que nit ñi ci kër yi lay feebar yi jógee mhm. xam nga boo nga toog ba ci yàgg nga daan gis mais ñooñu ñoo koy gérer c'est les médecins chefs de district et les médecins régionaux. Mm-hmm. mais ñooñu créé nañ seen seen comité de gestion pendant quatre mois impliqué wuñ leen. te affaire bi commencé exploser ci leen doog a commencé impliqué loolu moo lay wan parce que ñooñu yaakaar nañu bu leen impliqué woon xaalis ñooñu lay jëm ñoom duñ ko mën a mais comme dañuy politique leen intéressé mooy comment gagner de l'argent donc il fallait que ñu wane situation ak ñi ak ak hôtel yooyu ñen ñoo ko moom ak ñen la ñuy liggéey est-ce que est-ce que est-ce que xam nga xaalis boobu ñaata la ak fan la dugg loolu lépp ay ay ay ay xeet la yoo xam ni stratégie la yoo xam ne lu gars yi développé alors que amul lu mu woon njëriñ lañu ci hôtel yi di ko fay wala lañu doon jënde ceeb di ko jox ay nit nit boo koy dundal da nga koy dundal fii tey jiir dundu weer mënoo continuer di ma ko jox donc fexe ba nga xam ne man mën naa dem utali sama bopp la may jënd ceeb wala diwlin la may jënd ceeb wala diwlin mooy lan mooy wér naa su ma wéree man maay dem dem dem dem dem dem dem dem wëri uti xaalis mais mënuñu mënuñu concevoir ne yow nit mën nga ko dundal pendant cinq mois ñu dem jëndi ay ceeb loolu yëpp ay stratégie yu bon la woon mais rek bon ay marché la wu ñu ay xaalis loolu mooy indi situation bi <laughs> donc si on veut le développer mhm. nanu impliqué ñi nga xam ne ñoo nekk ci yi commencé chef de quartier yi commencé ñi nga xam ne ñooy étudiants yeeg élèves yi nga xam te ñi ñi ci bëri en dehors des examens ñu nekk en vacances mm-hmm. su ko defee ku nekk nekk sentinelle ci koñ ba nga nekk ñu impliqué leen y de quartier y a réseaux sociaux à mm-hmm. partir de là ku ci ñëw nga ñëw ci koñ bi ah gis nga kenn kuy jaay lekk yow sa boobu bu fekkee ni ci relais yi la nem nga changé nga ne takkal sa masque soxna si ah yaa ngi ni di jaay lekk ak yooyu mais jëlal gel bi nga laal sa loxo balaa ngay balaa ngay daggal nit mburu wala affaire dama noonu bu ma la séenee nii romb la sax am naa sañ-sañ wax la loolu hmm. loolu bu gis bi approprié wu propagation bi nombre de cas yi wàññeeku bu nombre de yi wàññeekoo rek bu cas grave yi day wàññeeku bu cas grave yi wàññeekoo rek euh, euh, euh, décès bi wàññeeku mais li gën a grave fi mu toll nii moo di Euh, ministère def na benn communiqué démb parce que il paraît que ils sont débordés. Hmm. léegi nee yeneen services yi nekk ci hôpitaux yi sax nañ leen def ay Covid. nan nga mën a nekk maladie dañ la maladie infectieuse boo xam ne yow da ne nit bu ko amee ci biir këram na isolé wu. ba pare nga ñëw biir hôpital ba nga xam ne malade bu nekk fay dugg nga ne léegi nañ ko taf test bi yëpp am ça veut dire que ñëw fa ñëw problème indi leen euh, fa ñëw problème mu da nga leen di contaminer. daal ñoom solution yi ñuy andi sax boo mayul dina gën a. baaxul la moo tax la moo tax personnel bi yëpp feebar. personnel bi yëpp mën nañ comprendre. personnel bi nekk nan la mën a expliquer loolu xanaa da ngeen ay matuwaay yu baax. mais du question matuwaay yi mat problème bi du problème matuwaay xam nga tey jii leen nit nit yow yow muy wax boo boo doxoon nit mm-hmm. daanu. Mm-hmm. daanu. Mm-hmm. wut a faatu. moo mel noonu. instinct la. doo doo doo seet ni kii dafa am feebar maladie contagieuse. yaa ngi xool noo ko mën a sauver. Mhm. waxuma la ak nga nekk agent de santé ñu ci bëri ñu feebar loolu leen parce que tey demal service d'urgence yi ak accueil dafa fees dell ci normalement rek nga def dix minutes bu fekkee dafa bëgg jaar yoon boo koy summi aussi pour ñu désinfecter la mën na def sax ay trente minutes parce que boo ñëwee tey daal li ngay sol dafa dafa war a am ñu koy sole tenue bi ni mu koy sole ak même temps ñun la war a désinfecté donc tey jii entre deux malades mën nga fa toog di def loolu mënoo ko def donc loolu moo tax par exemple da ngay ñëw nga débordé doo am temps sax raxasu ñi nga jëlee ngay jëlee di ñaan yàlla nag yàlla suturaal la suturaal malade yi loolu la rek. tey loolu moo fi am c'est la docteur Seck mu am euh, yëngu-yëngu gu bëri euh, ci seen mm. secteur bi donte euh, jamono ji mën nañoo ne yéen a nekk au devant de la scène ak xeexu mbas mi waaye tey mm-hmm. ñu ngi ci dégg yu bëri yu ci mel ni mm-hmm. benn plainte gi ñu teg ci ndodd benn médecin ngir ay kàddu yum mu yëkkati ñuy gis tamit ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi génn doon tamit ay ay nitu secteur bi di delluwaat ci kàddu yooyu la nga xam ne ki ñu teg plainte bi si ndoddam yëkkati na ko gis nañ tamit ñi nekk ci liggéey euh, di yuuxu borbale di wax nañ leen fay seen xaalis tey jii ndax soxla nañu coow lu bari loolu. waaw soxla wu ñu coow mooy li ma lay wax rek gis nga lu politicien géré bokkul ak lu technicien géré Sénégal mooy pays boo xam ne dañuy gérer Covid bi mais amuñ sax comité scientifique ou bien boog ci tur la rek xam nga scientifique mooy lan. mooy ñëpp ñi nga xam ne spécialistes yëpp même brancardier bi sax mën na cee bokk. Mm-hmm. parce que moom mooy transporter malade bi. donc moo xam lan mooy risque yi ñu mën a jël ak ko nekkee xalaat koy boole. Mm-hmm. comité nu mu tëti euh, scientifique boobu moom mooy jël décision yëpp yi nga xam ne tey jii moo war a moo moo moo war a def moo am ci dëkk yëpp bu boobaa politique bi du ñëw di xool li ko arrangé politiquement pour muy jël ay décision mais amul ay individualité scientifique ñoo am ça veut dire da toog ñu ne la bon responsable cause ñëw na wax na responsable institut Pasteur ñëw na wax na keneen wax na c'est pas ça c'est pas ça tey jii lan moo xew da gis dans les installé ay malade comme ni ñu def décision boobu décision boobu buñ ko partagé woon ak ñun les techniciens duñ ko jël parce que tey jii man am na stratégie boo xam ne moo gën te mooy arrêté propagation bi li ngay ñëw tey jii yenn service am na CTE nga jël yeneen service def ko ça veut dire que malade bu jógee ci yenn service mën na am feebar bi man moo doon mën na am lu ma leen xelal man dama naan leen loolu baaxul dama leen yóbbu leen def leen hôpital de campagne dem leen Dakar Arena ba nga xam ne ba ko construire ba tey pratiquement def fa basket ma aménagé ko ay parce que malade bi li mu soxla du ci perfusion li mu soxla yëpp mooy lan mooy ñu jox ko ñu jox ko comprimé mu naan ak contrôler ndax mi ngi toog mais loolu boo amee ay contreplaqué sax dagg ko mais moom moo am boo demee Espagne loolu lañ fa def am na ay hôpitaux de campagne lu bon bon militaires bu ñuy dem guerre mënoo gis mu armée muy dem guerre mu am mu am mu am mu am mu am mu am hôpital bu ñu tabax ba pare déedéet. dafay am ay ay ay hôpitaux de campagne tey jii am na ay structures yoo xam ni ay ay ay kiiwu bâche la ñuy defar mais yooyu mën nga ko jël nga def nga def hôpitaux yi nga transformé ko defee feebar da leen di isolé. d'accord boo leen isolé dootuñu mën a am contact ak keneen ba leen di wàll mais boo leen dugalee ci hôpital service yëpp nga def ça veut dire que hôpital bu fa dugg rek. feebar mën na laa dal donc au lieu wàññi feebar bi da koy gën a yokku. li jëm ci plainte euh, bi ñu teg ci ndodd docteur Niang nag euh, nan nga ko jàngatee. non li ñu jàngatee moo di ñun bu ñu jotee réagir nañu et on l'a soutenu xam nga maintenant intimidation la rek parce que nit ñi ci boppam xam nga ak dafay bañ ku ku teel. jox nañ leen ay ay lu toll ci cent cinq milliards. Mhm. dama la budget santé rek pour ay eh, quarante maladies rek jeexalul deux cent milliards nga jël benn feebar nga ne dugal na ci cent cinq milliards. te malgré cent cinq milliards yi rek ku nekk gis na ni nit ñaa ngi gën a dee nit ñaa ngi a ñu wax fa leen doon laaj. mais maintenant loolu dañu bëgg a ci xalaat ne ñuy wax plainte parce que balaa ngay plainte nit day fekk nit kooku mu wax mbir mais kooku waxul kan moo njëkk wax wax ci benn journaliste la bu proche du pouvoir te ma jamal jaan waxoon tuul bu waxee rek am na lu mu ko teg parce que jege ne Macky Sall da koy conseillé moom moo taxaw wax ni du ñu paree dañoo demantele CTI yi moom moo wax ni euh, euh, matériel bi nekkoon ci CTI yi gisatuñ leen dafa disparaître. te gis nañ bizarrement déedéet non yow yéen xam nañ leen yéen journaliste yi da ngeen yàgg a dem tribunal yéen xam na ñu ñu ñuy contourner ay wax. daa teg laaj quand tu fais non c'est normal mm. pourquoi ñuy teg laaj. kenn du la ci jàpp. waa léegi loolu la. non on connaît stratégie la léegi spécialiste yi ñoo tont tontu. déedéet indiwuñu tontu. Mm. on a fait que reprendre. parce que nous quand on constate une chose. on le dit mm-hmm. waaw ma ne dama du du du waxuñu c'est-à-dire que ka wax loolu tëbul tëb rek wax Madiambal c'est pas n'importe qui dañu xamante dëgg day gisanteeg président Macky Sall. d'accord ak bu mu ko nee conseiller la ñun xam nañ bu baax dafa ñu dund ay xale yi. d'accord docteur am nag yoo xam ne ay ay ay calcul la le plan politique ak affaire demoon maintenant lan moo ko undu ba mu laaj loolu pourquoi mu tëb rek wax ko. d'accord yow da nga ne da nga jàppale di tëb di di wax loolu mais c'est un problème très sensible su ko waxee rek il s'interroge parce qu'il pense qu'on doit lui apporter des d'accord mais ñoom ñoom moom réponse la pour ñooñu et non pas de convoquer les gens à la pour la gendarmerie. tey et affaire ah? et justement ci mhm. plainte googule gis nañ ci ordre de médecins ne wax euh, euh, affaire euh, privée la donc dañuy bàyyi justice bu def liggéeyam loolu niriwul ak bàyyi docteur Niang mu dem moom dong déedéet déedéet dama lay mm. wax lu neen dama lay wax lu neen mm-hmm. dama la nag ñun ñëpp ay citoyen la mm-hmm. ñun ñëpp nag li ñu tënk muy yoon. Mhm. moom président de la république moom moo ko tënk. donc tey jii man man bu ma accusé man damay dem justice ma seetal sama der loolu la loi wax justice nag kenn def entrave à la justice la justice nag na jaar yoon. ñun mhm. loolu la ñuy demandé. donc loolu ñu wax mais loolu mooy logique man dañ ni ma man man man man dama waxuma luy yoon wala def ma muy yoon damay dem tontu ji loolu amul benn problème. Mhm. waaw mais ñun xam nañ li nekk ci derrière mais loolu mooy mooy logique parce que tey jii chaque citoyen ah da ngay dem wuyu ji tegal sa der loolu mooy yoon ci lépp donc loolu ñàkkul dara ne dama wuyu bu demee mu reprendre li mu wax ak loolu benn ci def nag su fekkee ni nag parce que aussi am na loo xam ne aussi nit ñi mënuñu koo mhm. parce que kii ku fi nekk di wax rek dinañ xool lu ñu la yàqale même ñun syndicaliste yi on est on est jour ñu ngi jéem a créer au moins yàlla yàlla yàlla ngay suturaal parce que ñun xëy na kenn du ñu reproché duñu xëy waxtu wala duñu wàcc waxtu wala duñu def suñu liggéey loolu on le fait correctement mm-hmm. donc maintenant yow da nga am sa daal di lay indil ay ay ay ay ay naan la yow waroon nga fay lii waroon nga fay yooyu yooyu aussi nañ ko bàyyi nañu bàyyi ko buñu bàyyi yi ñuy wax ñu le président de la république xam nga ni ñii di dénoncé ak ñii di wax moom la ñuy moom la ñuy dimbali parce que boo bu man su ma joxee nit xaalis la cent milliards nga ñëw rendre ma compte ne ma xaalis mi yaa gongo tout baax na alors que gis naa l'autre réalité mais bàyyi ñi nga xam ne ñooy ñoo nekk terrain bi ñuy wax bu boobaa di nga xam ne ñii da lay nax. mais boo nanguwul nag boo porté ay erreur di nga am lu la bett trop. te loolu si la président bëgg na bëgg na bëgg na si leer na bàyyi ni ñu di wax bu nit ñi waxee moom mu envoyé ay ay service ñu dem enquêter bu nu enquêter gis ni loolu amul moo xam ne amul bu nu gisee nag ñu jël ay décision loolu mooy gën mais pour ñu lu ëpp kenn waxul jël ay cent cinq milliards naan nañ ci tabax nañ ci lépp te gisuñu ci dara on mais nañu leeral loolu. d'accord waaw te ngeen bàyyi yéen journalistes yi ngeen ñëw di di di di loolu mooy non man j'ai dénoncé le jour on m'a interpellé avant même man lii mën ko njëkk a laaj j'ai fait pas mal d'émissions sur ça. mais docteur m'a interpellé j'ai dit Madiambal n'a qu'à avoir le courage et non pas de faire des interrogations bien des affirmations. des comme ni nga comme ni ñu soxlaa laaj. loolu mooy yow muy man noonu la Madiambal soxlaa laaj. d'accord